au Sénégal nak euh, deful lu continuer la mu euh, def at bu nek diko def euh, Touba diko def Tivaouane diko def Kaolack ñu jëm nak ci bisu Mawlud Nabi Auchan ne kenn duko fi jitu dina ñew andi participation fi ci ëttu kër xaalif bi andi participation ay produits alimentaires ñu recevoir ñu nak, ñu dalal ñu dalal bu rafet ñu contente ci loolu ñu ñaanalu ñu ñaanal ñu tamit ñaan yi euh, yëg nañ ko euh, ñun nag ñu teewal fii euh, sunu président directeur général kii di Laurent Leclerc mun ne yóbbante ñu nee ñu bu ñu demee nañ ko gërëmal xalifa nañ ko santal xalif bi nañ ko wax ne ñaan ñu ñuy ñaanal gis nañ ko ndax ñaanal nañu Auchan jëm ci kanam te booba léegi gis nañ ne liggéey bi amul tànku ginnaaw mu ngi am tànku kanam ñu ciy sant yàlla bu baax Auchan nag di société bi nga xam ne euh, mooy le leader dans la grande distribution di société de droit de sénégalais di liggéey ak 2000 euh, collaborateurs sénégalais ak plus de 600 fournisseurs sénégalais donc euh, lépp lu ñu mënti def Sénégal moo ñu tax a jug sénégalais yee ñu tax a jug te itam euh, nu ñu leen fexalee ba yombalal leen dund bi ci jamono ju metti ji moo ñu tax a jug Auchan nekku fi ngir lu dul askan wi Auchan li tax a jug tamit mooy euh, askan wi jàppale leen dimbali leen te itam ci gàmmu gii nii dinañ leen taxaw bu baax. ndokkeel leen ci weer yi nga xam ne jullit yëpp a bokk muy weeru juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñu war ko dundalaat fii ci Tiwaawan ci jaar jaaru maam Seydi Hadji Malick saxal ko fi ba tey yàlla dogal ñu dem ba mbir mi agsi ci suñuy loxo ñu war fee taxaw yëkkati ci ay kàddu su ko defee nag ci biir loolu ñu sant yàlla bu baax mi ñu may ñu teewaat ko ndax it euh, ni mu ko waxee même ñaari at yi gàmmuwuñu waaye at yëpp ñoom ñu ngi ñëw même gàmmu ñu ñi ngi ñëw fa tabaarakallah kon ñoom li ñuy def defuñu ko ngir bis waaye dañu jàpp ni euh, dañu am lu ñu bëgg a joxe bëgg ko jotale ci jaam yi ñu nii nañ ko teg ci loxo yoo xam ne xëy na bu fa àggee yàlla mën naa def sutura ni ñu bëggee mu tasaaroo ci jaamu yàlla yi dana ni àggee participer ko ci weeru juddu bi juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu leen di ñaanal yàlla lépp loo xam ne lu nit di sàkkula ci bis boobu ci yiw ak tuyaaba yal na leen ko ci yàlla defal lépp lu ci nit bëgg ci promotion yàlla na ko ci yàlla defal te doomu aadama nag dundam yëpp promotion rek la ci bëgg